Euh, dafa bokk ci ay programme yoo xam ni euh, dañ koo xalaat li ñu xalaatee moom mooy nii est-ce que dañoo war a tëj école yi rek ba xale yu toog seen kër ñu bàyyi daara yi ñu jàpp ne daara yi bokk na ci programme yi bokk na ci prévention yi bokk na ci communication bi ñu war a def pour que nit ñi mun a xeex ak jàngoro ji xeex ak jàngoro ji nag dafa am ñaari pànd benn bi moom mooy ñu daje rassemblement yu mag yi buñ ko kenn fexe ba ñu tàggale nit ñi ak rassemblement yu mag yi maanaam ndaje yu mag yi ndaje yoo xam ne dana mën a xëy jur jàngoro ji mënuñ wàllante ko ñaareel bi moom ay set cet gi nag moom mooy ci loxo yi lay commencé raxas say loxo nekk dans de très bonnes conditions yoo xam ne da nga fexe ba cet da am cet gi nag pour nga am ko faaw nga uti ay produits produits yoo xam ne mel ni ay saabu ay détergent ay eau de javel noonu mooy mën a ñun ñu am cet googu ñu am moo tax ne dañ fexe ba nga xam ne ñoom demuñu dikkuñu ñoom ñu ngi ci biir kër yi xale yi duñu duñu duñu duñu tëjee tamit ci biir kër gi la ñuy dëkk ñu ne nañ nañ fexe ba ñooñu tamit am ay produits jàppaleen ci produits yoo xam ne dañ mën di mën a raxas seen ay loxo mën a raxas seen ay tànk mën a fexe ba seen seen cet mun a nekk lu lu lu am solo ci ñoom du boobaa danañ mën a fexe ba tàggoo xëy na xëy na danañ mën a prévenir jàngoro ji parce que jàngoro ji fi mu toll nii prévention lañ toll prévention bi nag mooy li ko ci am ak fam am mu yem fa ñu dagg lu ñuy wax la euh, rompre chaîne de transmission bi chaîne de transmission boobu pour ñu rompre ko nag mooy fexe ñu fexe ba yemale ko xam ne excès gu fi nag ñu fexe ba fàggandiku ndax comme ni ko olof waxee fego moo gën faju président de la république bi mu route bi jëm ci wàllu xeex bi dane benn moom mooy nañ fexe ba communication bi ñu jiital ko fexe ba képp koo xam ne institution la société civile bi parti yi euh, jeunesse bi mouvement associatif yi ñëpp nañ communiqué ci feebar bi pour que mun a wax nit ñi lan la d'abord pour mun nga xam ni feebar bi c'est réalité lu am la ñaareel bi moom mooy ñu fexe ba na lañ koy moytoo moytu bi mooy benn mooy ñu fexe ba ndaje yu mag yi ñu doon ndaje ci biir réew mi di ko raje ci ci gox-goxaat ñu fexe ñu arrêté ko ndax ndaje mi bokk na ci lu koy jokkalante mooy propagation bi propagation bi ñaareel bi moom mooy ñu fexe ba njàngoro ji ñu fexe ba fexe ay jumtuwaay yoo xam danañ set nit ñi set am am cet cet gi dala ne sun ay loxo te loolu nag pour ñu am ko faaw tamit ñu ut ay produits yoo xam ne moom la ñu accompagner xale yi ak sëriñ daara pour jàppale leen ci loolu lii moo tax tey tànk tey Aminata Touré présidente du conseil économique social sur instruction président la République sur l'accompagnement bi nga xam ne moom lay defal président di ko jàppale ci liggéey bi nga xam ne moom la ko sant moom fexe nag ñun fii ci biir Sine Saloum nañ ñëw jàpp ci liggéey bi dimbale xale yi jàppale leen pour que quand même feebar bi mun a mun a mun a mun a mun a mun a jóg ci dëkk bi waaye tamit bañ fa nga xam ne eggagu fa ñu fexe ba bu fa egg lii moo ko waral tànkam